salaamaaleykum mbokk yi comme ni leen ko waxee woon ah, ak ni ñu leen ko déggee woon ñu ngi nii ci yoon bi di dem euh, di dem New York euh, di dem soutenir sunu sunu frère sunu grand euh, Ousmane Tounkara pour taxawu ko woon Sénégalais yi ak administration bu Sénégal. Euh, consul bu Sénégal gouvernement Macky Sall que ni euh, Ousmane Tounkara du euh, du terroriste Ousmane Tounkara patriote la Ousmane Tounkara nit la boo xamante ni lu mu def ci communauté sénégalaise bi ci askanu Sénégal tey jar na ñun ñëpp fu waay mën a nekk rek nga taxaw si jàpp si jóg si parce que doomu aadama Ah, boo nekkee ci ay jafe-jafe nekk ci situation say say camarade say mbokk say indi jàmm say mbokk citoyen ñooy jóg taxawu la kon ah, ñu ngi sant yàlla bu baax ñu ngi nii ci yoon bi donc ñu ngi nii ci yoon bi di ah, di dem di dem New York comme ni ngeen ko gisee ah ñu ngi nii ci yoon bi nii di dem di dem New York voilà euh, mu nekk loo xamante ni vraiment euh, dañ ci dañ ciy sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax parce que xam nañ ni bu nekkoon ñun ñoo nekkoon ci situation bu mu nekk aussi euh, il va faire la même chose da def la même chose bi nga xamante ni ñun moom la ñuy def tey il faut que Macky Sall xam ne il a affaire à des gens yoo xamante ni ragaluñu tiituñu ci li nga xamante ni mu ngi koy def euh, on est engagé on est déterminé et on est prêt pour ce pays pour le Sénégal parce que tout simplement euh, nous pensons que ce pays-là on le partage ce pays-là c'est à nous et c'est pas à eux chaque personne qui qui vit au Sénégal doit le um, alors, five. Et je crois que c'est très, très, très important ce que nous, faisons. Parce que tout simplement, il est, il est important pour tout un chacun. Euh, dans cette vie-là, il ne faut pas avoir peur des combats. Euh, nous avons des Guy nous avons des, euh, de Abdou Karim Gueye, qui sont en train de mener un combat excellent par rapport au Sénégal, qui sont en train de jouer vraiment euh, des rôles euh, absolument, absolument importants pour ce pays. Nous, on doit faire cela. On doit montrer notre appartenance à ce pays-là. On doit montrer le courage. Et nous devons tout le temps, tout le temps, Thank you. Voilà, on est là. What? in New York, the one you print presented. So let's make oh. sure we get the right one. Sorry about that. Okay. Oh, so you got to see. You don't have the seat assignment yet. See him at D11. You need a boarding pass, and then come back to the priority. I need a boarding pass. You don't have it. You don't have the seat. There's no seat there for this flight. So, so where did I get it for you? At the desk, D11. See the white marking? Yeah. Yeah. Go right to that desk. All right. Alors, comme je vous le disais, hein, on est là, on est en route euh, pour New York City. Et nous sommes en train de mener ce combat-là. C'est un combat important. Chaque citoyen sénégalais doit... Hi, are you guys boarding on this? It's right? Oh. Alors, il faut que tout un chacun parmi nous joue ce rôle-là, assume sa responsabilité par rapport au Sénégal. Le Sénégal, c'est le pays que nous avons, c'est le pays que Dieu a choisi pour nous. Puisque Dieu a choisi ce pays pour nous, on doit tout faire, pour montrer au Sénégal que nous aimons le Sénégal. Et toute personne, tout citoyen sénégalais qui est dans des situations, qui est dans des difficultés, on doit tout faire, pour être là pour lui, tout faire pour être présent. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de partir à New York pour aller représenter, soutenir notre frère, notre grand, Ousmane pour que Dieu puisse l'aider et qu'il puisse sortir incha allah demain mu ànd ak ñun mu ànd ak ñun ñibbi këram et nous l'avons dit on a déclaré une guerre politique au consul du Sénégal le consul du Sénégal hello ma'am I don't have a seat assignment yes thank you alors Euh, c'est absolument, absolument important. Ce pays-là, nous devons tout faire, pour sauver le Sénégal. il sont en de, ils de tout faire pour manipuler les gens. Ils sont de créer des histoires pour parler de terrorisme, pour parler de n'importe quoi. Les seuls terroristes, c'est Macky Sall et son gouvernement. Les seuls gens qui ont

fu jafe-jafe am dañ ci war a bokk dañ ci war a dañ ci war a taxaw xeex ko Sénégal sunu Sénégal la Sénégal sunu Sénégal la mënuñu fi nekk di bàyyi nit ñi ñu def lu leen neex di ñu teg coono di ñu teg coono di ñu teg coono

je le disais hein, tout à l'heure, pour sauver, pour sauver Parce que ñun Sénégal la am amuñu leneen Sénégal la ñu am euh, te Sénégal moom nekk na loo xamante ne duñ ko négocier ak benn doomu aadama ak loo mën a toll ak loo mën a am duñ nangu dara nit di ñu si delloo ginnaaw te bépp doomu Sénégal bu ñu tooñ bu ñu bëgg a fitnaal wala bëgg koo teg coono dañ koy taxaw incha allah rabi euh, dañ ko dañ taxaw ba président Ousmane Sonko nekkee ci jafe-jafe ñu am chance mën a dem Sénégal fekkee taxawu ko ba yàlla def tey bàyyi nañ détenu yi bàyyi nañ prisonnier politique yi te noonu la ñu war a def tamit ba ñu bàyyi Ousmane Tounkara et continuer à signer la pétition continuer à signer pétition pétition bi àggoon na. presque seize mille signatures seize mille signatures àggoon na fa euh, ngeen ñaanal ñu yàlla ñu àgg si jàmm ak salaam New York ngeen ñaanal ñu yàlla euh, yàlla def incha allah rabi Ousmane Tounkara talaata suba incha allah rabi ñu ànd ak moom ñibbi këram ànd ak moom dem euh, ci njabootam ànd ak moom dem devant le consulat du Sénégal woon le consul du Sénégal que du ci dara woon le consul du Sénégal kani moom. moom mooy suñu jàmm moom mooy suñu mbindaan et il doit comprendre cela euh, le temps des intimidations sont terminés nous sommes dans un pays libre on dans un pays libre un pays démocratique un pays qui respecte les gens un pays qui n'est pas euh, comme le Sénégal vous savez alors euh, yàlla yàlla na yàlla def Ousmane Tounkara suba mu ñibbi si këram mu ñibbi këram ak njabootam ñu gunge ko comme ni ñu gunge woon président Ousmane Sonko ba mu ñibbi këram fekk si njabootam yal na ko yàlla def te le consul du Sénégal je pense que euh, son mandat ay terminé sa nomination parce que nit buy jiite ay doomu adama doomu aadama yoo xamante ni yow yaa leen di euh, yow yaa leen jaay yow yaa leen di yow yaa leen di faagaagal yow yaa leen di fitnaal yow amatoo droit amatoo benn légitimité pour nga jiite ñooñu est-ce que vous comprenez kon euh, le combat que nous menons C'est un combat contre l'injustice. C'est un combat contre euh, personne qui tente de nous intimider, de nous opprimer ou de nous jéem a jaay doole. fii yàlla rek am doole te yàlla la ñu yaakaar yonent bi la gëm suñu waajur yi lañu jox cër. alors pour le Sénégal c'est comme le disait Thomas Sankara la vie ou la mort nous vaincrons il faut oser il faut être courage il faut être courageux yes sorry il faut que nous soyons courageux il faut que nous soyons courageux et que nous et être euh, confiants que notre pays C'est un pays avec lequel on ne va pas jouer. Unissons-nous le Sénégal. Le Sénégal est, un, une chance pour nous. Sénégal ah. mayu yàlla la. ku nekk boo sañoon beneen dëkk ngay juddoo peut-être ku nekk boo sañoon beneen dëkk ngay am ñun Sénégal lañu am yàlla Sénégal la ñu may. comme que yàlla Sénégal la ñu may nag ñun ñoo war a sàmm Sénégal.

strapped down and get back seats and I'll be placed the floor at the first row of each cabin. If you are seated in the first row of each cabin, you will have a wall in front of you. Please take a moment to turn up your feet. If there is anything down there, no matter how small it is, it doesn't need to go in there. Just for taxi takeoff and landing, you're more than welcome to take it out during the flight. Uh, Tunkara, encore une fois. Also, laptop computers may not be stored in seat back pockets. You and I use cellular phones while we're parked at the gate. We'll let you know when they must be turned off and put away for departure. As you are making your way down the aisle, once you reach your row, if you could please step into ci bu baax a baax a baax nañ góorgóorlu ci Sénégal ngir yàlla ak yonent bi nañ ñu góorgóorlu ci Sénégal bañ a ragal bañ a ragal bañ a ragal góor yàlla doomu aadama du ragal doomu aadama du ragal doomu du ragal. jàll suñu borom rek a fi nekk jàll suñu borom rek a fi nekk yàlla suñu borom rek fi nekk Ousmane Tounkara fu mu nekk yàllaa ngi fa te incha allahu rabi lu dal euh, Assane Diouf lu dal Tounkara te au passage ñu ngi ciy remercier Assane Diouf bu baax a baax a baax parce que ba mu demee ci euh, xalif général des Mourides démb moom ak ñoom Clédor il a mentionné la situation de Ousmane Tounkara kon dafay baax ñu ñëpp ñu xam ne fu ñu mën a nekk drapeau bi moo sacré si ñun fu ñu mën a nekk drapeau bi dañu am lu ko gën ak kiit bu ñu mën a am ci àdduna ak passeport bu ñu mën a am ci àdduna ak lu ñu mën a am ci àdduna du ñu am lu gën Sénégal du ñu am lu gën Sénégal ce pays nous a tout tout tout tout lépp la ñu réew mi jox lépp la ñu réew mi jox kon à nous de rendre la monnaie à ce pays en étant constant en étant actif en étant solidaire les uns envers les autres en étant solidaires les uns envers les autres il faut que la solidarité soit une solidarité sincère une solidarité sincère une solidarité sincère xol yi nañu ànd libérer le Sénégal de ces la là qui ne sont là que pour leur propre intérêt et pour l'intérêt de l'Occident. Il faut pas il faut pas négliger. Il faut pas reculer. Non. Non. Ce pays a tout ce qu'il faut. ce pays a tout ce qu'il faut pour devenir le meilleur pays du monde, le meilleur pays de l'Afrique, mais un pays où les enfants du Sénégal ne vont pas avoir besoin de sortir pour aller dehors, pour réussir leur vie. Mais c'est d'autres personnes qui vont vouloir venir au Sénégal pour réussir leur vie. kon loolu moo waral ñu nar fi jog nii ci kattanu yàlla dem New York mu nar a nekk vol boo xamante ni du volu direct day dem ba Dallas Texas. Once again, good morning, Legion. For those of you just joining us, welcome aboard this American Airlines Flight 76 with service to Dallas Fort Worth. This is a completely full flight. You are only allowed two carrying items on this flight. Please place that smaller item under the seat in front of you. Leave in the overhead bin for those large roller bags. If you did bring on a roller bag, please place that back into the overhead bin, wheels or handles first, and then turn it on its side. We can accommodate more passenger bags that way. It's très important. in also carry on as we're not block out exits. Jamais. May not be placed uh, at the floor of the first row of each Depuis, cabin if there is a wall in front of you. If there is a wall in front of you, please take a moment, look down at your feet. Anything down there needs to go into the overhead bin just for taxi takeoff and landing. You're more than welcome to take it out during the flight. As you are making your way down the aisle, once you reach your row, if you could please step into your row, allow those behind you to pass. We can help expedite the boarding process. We are approaching departure time.

du ñu nangu kenn kenn du Macky Sall du Ousmane Sonko du ah, Idrissa Seck du kenn bu ñu nangul kenn kenn kenn yàppal ñu suñu réew dafa am solo mais nag fu doomi réew mi nekk am fa ay jafe-jafe ngeen mën fa dem àgg fa taxawu ko sàmm ko suturaal ko gunge ko def leen ko def leen ko def leen ko def leen ko te yàlla tax def leen ko te réew mi tax def leen ko te bëgg yàlla moo tax on aime ce pays on aime ce pays kon bokk loolu moo nekkoon euh, message bi loolu moo nekkoon euh, tàggatoo bi na la ñu ngi dem nga ñaanal ñu dem si jàmm ñibbisi si jàmm mais Ousmane Tounkara incha allah suba ñu bàyyi ko ci jàmm ak salaam ñibbi këram ñu tamit suñu xel dal Sénégal xel seen xel yi dal kon. bu leen fàtte di ñuy ñaanal nga ñaanal ki nga xam tamit téye nañ ko loolu leen xam ci ñaan loolu leen xam ci baatin loolu leen xam ci lu baax daf leen ko ngir suba ñu libéré Ousmane Tounkara ci barke yàlla ci barke yonent bi ci barke Cheikh Ahmed Tidiane Chérif ci barke Maolana Cheikh Ibrahima Niass ci barke suñuy waajur kon maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm te incha allah bu ñu àggee New York aussi dinañ def live ngeen gis ko Euh, ngeen xam situation bi foofu nu mu demee suba tamit ci tribunal ba incha allahu rabbi dinañ leen fa defal euh, live boo xamante ni euh, en direct lay nekk doo leen fu raté dara dara dara dara dara bu soobee yàlla doo leen fa raté dara bu soobee yàlla alors c'est ça dafa am li Baye Niass Moussa wax nee ne maqatal mukarram bu fekkee benn jullit rek mu ngi dem aji dafa mel ni aji na jullit yëpp. ko ñun tamit suñu dem bi képp ko bëggoon dem te mënoo dem ñu ngi lay demal ñu ngi la fay teewal jaa ngeen jëf nekk leen si jàmm ñu am semaine jàmm ak salaam ñëpp ñu nekk ci prison yi ñu bàyyi leen képp ku tëdd ci lalu hôpital yal na la yàlla may tan képp kuy wut kayit bitim réew yal na la ko yàlla may ci jàmm ak salaam bu bu la ko mayee yal na ko yàlla barkeel bu la ko barkeelee yal na nga si jëriñu jëriñ ci sa askan jëriñ ci sa njaboot jëriñ ci sa bopp yaakaar bi nit ñi am ci ñun ak yaakaar bu ñu am ci suñu bopp yàlla na mu tas te yàlla doon lu baax nañ doon nitu jàmm doon nitu salaam di gis jàmm di dégg jàmm di wax jàmm dégg jàmm wax jàmm jëfee jàmm loolu kese mooy suñuy tànk waaye képp koo xamante ne dañoo ne yàlla mun na la teg benn mbir yàlla mun na laa teg ñàkk waaye ñàkk fayda moom yaa koy teg sa bopp yàlla mun na laa teg ñàkk waaye ñàkk fayda moom yaa koy teg sa bopp kon bu ñu nangoo mukk te ñàkk fayda ci ci ci kanam su suñuy askan nañ am fulla am fayda góorlu lépp dina baax jaa ngeen jëf kon xam naa ba ci kanam incha allah ñu defal leen beneen live soobee suñu borom allez partagez leen live jaa ngeen jëf